Bienvenue sur Salam Vision. am ngeen lu ngeen mën a tey journaliste yi am ngeen lu ngeen mën a tey tay noo ngi fii di Wakaam départ nag ànd ak Serigne Makhtar Sylla Seykhul Asrar fan la ñu jëm ci Cheikh Bass moom Serigne Abdou Khadim mi poot porte la yoonu murid porte porte murid muy kenn nag di gëm ak Serigne Makhtar Sylla à travers xam nañ ko muy at mu jot siyaar bi nga xam ne moom lay ànd ak waa Wakaam yëpp dem siyaar yi ki nga xamante ne mooy porte porte la yoonu murid muy Serigne Bass Serigne Abdou Khadim ñoo ngi départ. ànd ak waa gox bi sëñ Maxtaar nag di gëm ak sëñ Basa du Xaadir ñëpp a ko xam fii la na ci Wakaam luy doxal yoon bi rekk moo ko ñor kooku mooy sëñ Maxtaar si la Sayxul Asraar ku xam waat ci la xam ay maamam nii rekk la mën a demee kooku sëñ Maxtaar si la kon Cheikh Sidi Maxtaar ay si la ma reema Sayxul Asraar be Cheikh Sidi Maxtaar ay si la ma reema Sayxul Asraar المحتار وش العمر ما شيخ الاسرار شيخ محتار شيخ محتار شيخ محتار شيخ محتار شيخ محتار Bye. boole ko jaamu eske yi roy nga muxtaar yow yaa njëkk jàngale lasraar yi bu ci tabloy feeñal ko nag ci média be gaaye ku farwaar xam-xam yi nëbbu xam ko xam le ko doo kuy nëbbu lan waa xarfun waa najmun waa aadaadun nga far dajale xarfun waa najmun waa aadaadun nga far dajale ilmul xawaatim wa miisaan bi amutaar waaye nii rek ngay mën a ku xam fa maame soosoo day dal xam ni bu wéer doonu Seex Maxtaar borom baax Maxtaar Anta Kumba Faal borom baax Sëriñ Tey Mba Faal ma sa maam borom

suñu borom bay te yàggal te may ko wér ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Bachir mii nga xam ni moo yor yoonu murit ñaan yàlla may ko wér kàttanal ko ci liggéey bii nga xam ni mu koy liggéeyal maamam sëriñ sëriñ bi tey sa taalibe sa soppe la bëgg lool muy Cheikh Sidi Mokhtar Sylla mii nga ni tey bi muy ñëw naa mbooloo mu bari def délégation boo ni bàyyi ko ay oto yu ndaw waaye kaar itam boo xam ni yor liggéeyu Serigne Touba bi ca Wakam muy bi ak jëwriñ bi ak ñi ko yàlla booleel ci liggéey bii muy liggéeyu Serigne Touba ñoom ñëpp ñu ci jafe ñëw ngir diyaar si la def ko na ma ko defee woon daaw itam ñooñu yëkkati xasida yi itam ci mbooloo mi lan ko Mbacke Cheikh Sidi Moukhtar mi ngi liggéey liggéey boo xam ni ca Wakaam tey ma nga fay amal màggal boo xam ni màggalu Tuubaa Wakaam la at yi weesu ma nga fay dajale kuréelu xasida boo xam ni toll na ci ji yoo xam ni bu cérémonie bi tàmbalee ñoom ñëpp dañuy toog yëg dafa ñëpp di ko ko fekk fi liggéeyal sa liggéey boo xam ni li tax jëwriñu daayira yi ak mbooloo mi ànd ak moom ak taxawaayam foofa moo waral ñun ñu ànd ak moom ñu koo xam ni kër gu mu dugg foofu danañ ko ubbil buntu kër waaye semaine bi bu jot ci tam soxna yee toog ak góor yàlla yi danañu daje këram jàng xasida mu togg ay benn jox loolu dana la ko seedeel Mbàkke li ñuy sàkk nag sa jëm mooy nga ñaanal ko yàgg fi lool ci ànd ak am na taxawaay boo xam ne fee ca wakkaam ba mu fa ñëwee ci njëkk ñun nag xew-xew yee xew foofu yëpp lu ci bari dana ko waaye moom mii ña fa ne te bokk nañ ci yoon wi bu bis bi jotee jaraaf yi ak ndey yi ak saltige yi ñoom ñëpp danañ ànd ak moom ci gi rek waaye ak sëñ Mamoun waaye sëñ Amdi mu ngi moom it mu ngi fi Cheikh Cissé mu ngi fi. Cheikh Abdou Mbeng mi nga xam ni moom la ñu fayee Cheikh Abdoulaye Mbacke borom dër bi moom it mu ngi fi ak ñeneen ñoom ñëpp ñu ngi ci jotaay bi ñoom Cheikh Samba Diarra sëñ Mamour Rakam ñoom ñëpp ñu wala ànd yëpp ñëw waaye fekk fii itam sëñ Mamour ak sëñ Xaadim mii ak Cheikh Abdoul Khadr waaye nuyu bu baax sëñ Ahmed Sallou bu baax mais nga xam ni sunu xarit waaye ku yàlla baaxal ak sëriñ Youssou mii nga xam ni doomi sëriñ Abdourahmane Fall ci laa la ñu bari ci jotaay lii mooy kàddu yi nga xam ni newoon naa dinaa ko yëkkati ci kanamu sëriñ léegi damay bàyyi sëriñ Mamour moom it li ci des ci ay kàddu mu motul ñu jébbal kàddu bi sëriñ jërëjëf ginnaaw bi ñu sant yàlla sunu borom ñu julli ci sangi sangi Seydina Muhammad noo ngi dellu nag di santaat si Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul di ñaanal doon ci ànd ak wér ba ci lislaam bi naa ko liggéey sëñ Tuubaa bi àggale koog sagoom te nu ànd koog moom di siyaare bu baax it jëwriñam toog jàmbaaru fàkk dëkk gii di ci yoon wi muy Cheikh Mamadou Bassir moom Serigne Abdoul ginnaaw Mbàkke buñ la siyaaree te di la ñaanal yàlla sàmm la te aar la yàlla guddal sa fan Mbàkke te wéral la ba yéene jii sa kilifa yi am ci yow di yëkkat liggéey bu tedd bii teg ko ci sa loxo Mbàkke yàlla ko ko xam ni kawe na seeni jot ndax bu nee yàlla na yen bi kon day mel ni liggéey bi ngay seen mu jëm da nga koo xamul ndax mënta oyof waaye na yàlla na ko sëriñ bi dénnu boppam te loolu it Mbàkke rafet ndax lan sa pas taxawaay ak sa dëggal ci sa diggante ci sëriñ sëriñ nag mii toog di Seex Sidi Maxtaar Sylla mu gën koo miin ci seexu lasaraar di sa taalibe di sa di sa lépp daje bi ko lu ñëw ànd ak mboolem kuréel yi waa Wakkaan yi ak mboolem dayre yi mboolem kuréel ak waa kër Sëñ Tuubaa buñ tuddee sëñ am di si la mii wax Cheikh Abdou mii ñi nga xam ne dañ koo dëkk sëñ Laay borom mbir mel na ni tudd naa ñëpp moom nag li ci li ci jiitu mooy Mbàkke feddali laxasaay yeesalu taalibe yeesal pas-pasam ngir gat sa taxawaay ci moom ak am jum la am def la ngay kilifaat bi léppam loola kanam rek la ko jëlee waaye gisuñu benn yoon loo xam ne dana wàññi dara ndax yow képp koo xam ne bëgg na Sëñ Tuubaa ba agsi ci yow pas-pasam day yokk ndax yow mbàcc bii nga toog bëggoo dara xooloo dara yëg yëg ñi nit ñi am ci àddina sax yow da nga koo wees yow benn yëg nga am muy sëñ sëñ Moussa Ka moo waxoon nag sëriñ bi waa ji ko gisoon na gisub xol koo mën a tee gis mu sew ci sam sëriñ bi waa ji ko gis mu gis la koo mën a tee gis it du tax mu doy la sëriñ bi ku ko mos mu mos la koo mën tee mos du tax mu saf la waaye sëriñ bi ku ko am te ñàkk ko koo mën a yow nag Mbàkke foofu nga ne yow benn pas-pas nga am benn jublaay nga am benn bëgg-bëgg nga am muy dem ci moom mii nag jaayante gi mu jaayante ak yow bàyyi la ak léppam ak ñëppam ak képpam loolu nag def gi ko def def ko ngir Serigne Bassirou Abdou Khadir mi yor la kaddu yoonu murit mbaa Serigne Bassirou Abdou Khadir di porte parole déedéet doomi Serigne Abdou Khadir bi nga xam ne day murit c'est-à-dire liggéeyal Serigne Touba bàyyi kilifaam gërëm ko yëkkati garage bi takkal ko xool fii moom la Serigne Matar Ba kon nag bu àndaat ñëw taxaw fi sa kanam ñuy waaj bis bi nga xam ni at bu jot dañ koy amal muy màggalu Serigne Touba bu mag gi nga xam ni da koy amal ca Wakam lii moo di wax dëgg la kuréel lu jëy suñ yàggees na koo dégg waaye nag ci biir mbooloom laa ko njëkk a gisee ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett ñu daajandoo gës ba xulóom jàng ko ci benn barab mur képp toog di déglu loolu moo fay am loolu mel noonu nag mbàkke bu amee wax dëgg yàlla suunu tawféex la suunu yokkute la mu ñëw nag ànd ak mboolem mbokk yi mu am yëpp Serigne Djily nag mii nga xam ni day kenn ci moom kenn ci yow ànd ak sëñ Xaadim Jaan nii lii wël la leen Serigne Mame Mor mi ñuy toog di rakkam ñoom ñaar ñu bokk lépp waaye moom it mu jël léppam jébbal ak ko kon nag bis boobu nag Mbàkke moom lañ jublu di ko waat war koo def kañ le 11 du février daaw nag ci waxtu wi danoo daje fi sa kanam bi ñu ñëwee ñii lañ toogee woon ñu fekkaat da nga toog nii lañ ko war a jàllale ñu jàllale ko bi ñu noppee jébbal ak kàddu gi loolu wax nu mu def noonu moo nee noonu nan ko wéyal ñu wéyale ko moo nee ñu teg ci suuf ñu diggee fii teggee fi dem mureel ca tool ya defal la li nga bëgg ndax moom kat na dafa jaayante te ab murit nag pas-pas la am ak liggéey sëñ Tuubaa lu ko kilifaam wax rek loolu lay def seen sànq léegi dama ko ne ba xam dañuy yëkkati kàddu bi jox la mu ne ma man euh, awma ci kàddu nanu déglu sëriñ bi jarul kenn di wax li li sëñ bi wax nan ko def ndax nag sëñ bi moo ni wa intu daalis man yakunu akbara min koy xaawilu saamanan wa tara te te an yoro musalan li xaaja wax di loolu laay tiital xaaja waaye daal sëñ Matar mii ab taalibe la ab murit la nit ku dëggal la benn bis nag damay waxtaan ak moom ndax nag moom damaa bokk naa ci ñu njëkk a moom waaye fi ñu koy gis nii pas-pas ci sëñ Tuubaa moom mën naa ne doo koo judduwaay bi muy ndaw la loolu def moom mës a def lu ma mës a daanañ nekk ci jamono tolluwaay am dañ ne ko teenoo def nangam mu ne ma su ma ko defee di sàngam Serigne Touba man na maa terendee lu ëpp loolu te te te damay bañ jot sama ginnaaw dara di ci am kersa te nag kenn ku ne li nga xam ne yàlla bind na ko te di ko ci jot te bi may liggéeyal moo ne yàlla waxab la ko maaraamoo muy wax ji xawaay jëla si na daamoo fii xin ma ci waxab la ko maaraamoo mu ne ma gannaaw nag maa ngi ci maa xam naa ne danaa dajeeg moom te loolu nag Mbacke suñu jootaay bi ak yow doo leen sëkk kuy la doo leen sëkk taxawaay kon nag Balla Gaye sax noo ngi lay sant la gërëm mbooloo maa ngi nii yaa ngi nii bis baa ngi nii loolu wax rek noonu lañ koy sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ jëwriñ sëñ am si dafa wax ni ñu seedeel sëriñ bi Cheikh Samba Diaw mu baax mi toog liggéey bee ñuy liggéey sëriñ Tuubaa muy kër sëriñ Tuubaa gi ci waxtaan am na ci taxawaay boo xam ni taxawaay bu am solo loolu la ñu woon nañ ko seedeel Cheikh Mouhamadou Bousso nee na liggéey bi. Ah. ana sëñ Bara Niang di ko ak Serigne Cheikh bi waaye Cheikh Samba Diaw mi ñëw na ko ba ci dem nee na xool na liggéey nee na la jëwriñ mbàkk yu fay def seen bi ma nee na teg ko ci seen loxo nee na wéyal nañu liggéey nee na ànd nañ ci ak ñëpp ak jëwriñ yëpp loolu la doon séeneen sëriñ bi pour pour pour mu mu xam ko waaye imaam imaam Gazaali yi tam ba ci jógee tamit ne ne Samba Diaw ba mu ci jógee ci kër Sëriñ Tuubaa yi tam kër Sidi Maxtaar si la la def ah liggéey bi sax Samba Diaw nee na daanaka liggéey bii nee na daanaka liggéey bii. non foofu baaxul. foofu baaxul de ci ci film ngeen moom ci loolu. waaye léegi la ciy doog a am ndigal nag ci sëriñ. ne mën naa cee jàpp te jàpp ci bu baax mu jàpp ci bu baax ne bis ni tey incha allah ñoo koy ànd léegi waaye Sëriñ Aboubacar ay léegi itam ànd na ci délégation bi moom it xam naa ne mu ngi ci ci biir ngir gunge Sëriñ Maxtaan li ngeen ci toog. asalaamaaleykum wa rahmatulah. baax baax. nee ngi nuyu mbokki jullit yëpp. ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp. rawatina waa Ndakaaru bépp. rawatina nag yéen ñi nga xam yéen a ca Wakaam. sëriñ bi nee mi ngi yëkkati ay kàddu yu nuyoo ak ay kàddu yu cant ak ki ngërëm. di ko teg ci loxo Serigne Sidi Muxtaar ak mboolem ñi mu àndal ñëpp Serigne bi ne bàyyiwunu kenn nee na buñ ci tuddee Serigne Amdi Silla buñ ci tuddee Serigne Amdi Silla mi nga xam ni way juram la micro te nekkal Serigne bi ci barab ba ak sëñ Abdou Xaadir Ñaŋ mii nee ak sëñ Xaadim Jaan ak mboolem mbokk taalibe yëpp sëriñ bi nee te di ko sant bu baax nee na it di sant yàlla bu baax di sant sëriñ Touba kii di fekkee jim nu ko fekkeeloo nee na ci fekkee bii nga xam ne fekkee wat nañ ko tey tey ñaan ñu fekkee ko ay ati at muy ci bisam bii nga xam ni mi ngi koy def di ci liggéeyal la sëñ Touba ndax nee na liggéeyal la sëñ Touba sëñ bi nee na la ca jiitu mooy jàng alxuraan bi ñu ciy def ak nee na xasida yi nga xam ñu ngi ko ciy jàng rawatina nag nii nii ñu koy jëmmalee nee na ci jëy suñ boobee nga xam ni ab lim bu màgg la ci lislaam rawatina nag ci sëñ Touba sëñ bi nee na kon nee na kon loolu di sëñ Touba sëñ bi nee na benn yi ñu ciy def itam ngir mu tasaaroo ci ñëpp loola tiyaaba ci kenn xamul nu mu toll na ñu koy santaat bu baax nee na sëñ Sidi Mokhtar si la ñu ngi lay gërëm ci sa taxawaay nee na ndax sëñ Abdoulaye Hadj daa wax nit melul na mu wax na mu jëfee la mel nee waaye sëñ Matar si la muy jëfam yóbbaale na ay waxam nee na te nag la ci ëpp solo nee ndax ne xam ngeen ni mu bokkee ci yoon wi nee na ndax sëriñ bi moom kenn ñu ta bokk ak moom waaye nag xam ngeen li mu bokkee ak yoon wi nee ndax loola moom kenn ñu ko wax nee na ndax lépp dañ koy jaay jëndee kook taalube waaye nag moom mii ku dëju ci biir yoon wi nee na ku diggu ci biir yoon wi te it nee na mbokkum ñëpp la te it boroom xam-xam la it nee kon nag bu jëlee lépp xam ni lii jariñe mooy ak taalube nee mu soobu ci loolu te nee na la ca njëkk ginnaaw bi sëriñ ñibbisee Tuubaa dafa am ci mbokk taalibe yi boo xam ne day xool Cheikh Mamadou Moustapha ba ci yàgg Mbàkke Bàlla mu yërëm ko lool mu ne ko Mbàkke dama laa ñeewantal ndax yan dafa diis damaa bëggoon wax ma lu ma la ciy dimbalee mu ne ko lii ci lii ci lii ci mooy li ma ko gën a fonke mooy lislaam bi mu amee fexe ba képp ku ko ku ko seen rek am ni sëñ ma Sylla mi ab jullit la waaye taalibeem bu sëñ Tuubaa la nee wala kuy kuy jaxasoo ko moom it xam ni nee na waleerul loolu ci kaw ba noppi mel ne neen ci biir nee na kon loolu mooy li ci ëpp solo bi nu yàlla boolee ba nëgën itam mu def ma buntam ci di sëñ Touba sëñ bi nee na parce que bu dëggu nee moom laa xam ci moom ak ko sellal boo xam ne taxu ci dara nee na kon nag lépp lu mu nekk rek fas nañ koo yéene ànd ak moom ndax moom li ko war suñu diggante lépp nee na def na ko ba matale kon nag nee dañ koy bàyyi ak yàlla ak jëmmi sëñ Touba mi nga xam moo ko tax ci yàlla na ko dëgëral te te kàttanam ba yoon wu mu soobu tey liggéeyal la sëñ ba yoon wu mu soobu ngir liggéeyal sëñ Touba mu àgg rëkk te te dara bañ koo dox sëñ bi nee na te wóor na ma ni yéene ji mu am ak nee na xalaat yu rafet yi mu am sëñ bi nee loola bu yàggee rek dana am ay résultats yu bëree bëri nee kon ñu koy sant te di ko seereel ñëpp nee ñu ngi nuyu waa Wakaam ak mboolem ñu ngi ko àndal nee na sëñ Samba Diaw mii maa ngi ko koy wax léegi di ko yóbbante ci sëñ Mbàkke yu mi nga xam ne mooy jëruñu Ndakaaru bii ak li ko wër ngir mu ànd ak yéen bis bi nee na kon alaaj Samba yéen it ngeen taxaw ci nee na comme ni ni ma la ko digalee rek ngeen xam daal bisu bisu ko sëñ Touba la ngeen ngeen ànd koog moom te ngeen na gën koo fonk te xam ni loo yëkkati ngir na sëriñ bi rek nee na waxtu wu ne dangaa war a fexe ba muy gën a kawe ndax nee bu ko pëstéef lalee rek nee na rek la jëm sëñ bi nee na kon nag ñoo ngi ñaan mi ngi ñaan ñu àgg ak te kenn ba sa am gàllankoor ba ñëpp teew ci nun ko bëggee jërëjëf jëf ñu ñu ñu ñu ñu tàllal loxo yi sëriñ bi ñëw waaj leen amin amin amin Mbacke amin nan nangu ñaan Cheikh Sidi Maxtaar ay si la mareema Cheikhul Asrar be Cheikh Sidi Maxtaar ay si la mareema Cheikhul Asrar be Cheikh Sidi Maxtaar ay si la mareema Cheikhul Asrar jàng nga mboolem xet yi nii dajale yàlla yaa yaay Seexul Xadiim boole ko jaamu iski roy nga muxtaar yow yaa njëkk jàngale lasraar yi bu ci tablaay feeñal ko nag ci média be gaaye ku farwaay xam ko xam le ko doo ku in bulan waar xarfun waa najmun waa aadaadun nga far dajale xarfun waa najmun waa aadaadun nga far dajale ilmul xawaatim wa misaana mi amutaar waaye nii rek ngay mën a ku xam fa maame soosoo day dal xam ni bu weer doon nu ngalas Seeku mooy ki ko jur Maxtaaru mooy ka ko jur Maxtaaru moomee ka ko jur mooy Seeku Maxtaar balaa nga Kumba Faal Seex Maxtaar borom baax Maxtaar anta Kumba Faal borom sur Salam Vision.